maa ngi woo Adja Kiné Diop sama yaay ji yaayu Kaja ndaw maa ngi lay woo Kaja ndaw maa ngi lay woo yaag Ablaye Aan maa leen di woo déwén yàlla na leen yàlla indi fii waaye sama yaay Kiné Diop maa ngi lay woo yàlla na la yàlla indi fii ci daraja Seydina Muhammad la yàlla indi man la Jimbori man soo ko tey dama laa gis ngay live ci Pendo mais yow Pape Diouf euh, euh, euh, moom mooy caatu yaayam foofu da nga cee juum de. Ah. Pape Diouf ki mu doon sëyal. waaw mooy caatu yaayam foofu moom da fa juum quoi. Pape Diouf ki waaw Pape Diouf mooy jëkkëru pendoo bi bi Pendo mujjee sëyal. waaw. Pape amul amul rakk bu jigéen mag yi jigéen la am ñooñu ay màgget lañu. la information boobu. ah. man joxuñu ma tur joxuñu ma tur quoi. ah wa foofu de moom da nga fi daan ba pare yow papay Pendo mi ngi dund deewul de. allo. man li ma wax mooy bu sa baay sax boo demee ba nga laa la mu waa mais xam nga da nga ne. ba nga sa baay mu day dund quoi. waa mais xam nga xam nga pendoo euh, euh, moomi moomi moo ko daan defal lu nekk mooy xaritam. man ah non bàyyil pe bàyyil Pendo waay ngir yàlla ak bi quoi. non ba pare lii lii baaxul ci yow yow jàng nga arxuraan yow sa yaay jàng arxuraan ah nga mel ni nga mel non man daal léeg-léeg man sama waay nga. yàlla na leen yàlla may gudd fan yàlla may leen wér yàlla may leen fekkee lépp ci daraja Seydina Muhammad maa ngi ñaan sama yaay Kiné na la yàlla indi fii Samba Guissé sama mag ji yàlla na la la ci cet yàlla musal la ci lépp ci barke Seydina Muhammad Samba maa ngi ñaanal Aïssa maa ngi leen ñaanal Jibi maa ngi lay ñaanal Abdou Mbaye maa ngi lay ñaanal bébé laay maa ngi leen ñaanal maa ngi ñaanal kajaabu ndaw ak bébé nday maa ngi ñaanal ñëpp ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam maa ngi ñaanal Fama Fatima Ndaya Kiris maa ngi leen di ñaanal di ñaanal xale yëpp ci barke Seydina Muhammad Muhammad Baba Maal Khady ah, Aïcha hmm, Pinado sama turandoo bébé Samba hmm, bébé laay maa ngi leen ñaanal yéen ñëpp Abdou Mbaye maa ngi lay ñaanal loo bëgg yàlla na ko yàlla defal ci barke Seydina Mouhamad ah, di ñaanal ñëpp bébé maa ngi lay ñaanal bu baax a baax Khady maa ngi lay ñaanal di ñaanal xale yëpp Mouhamad maa ngi lay ñaanal ñaanal Baba ma di ñaanal ñëpp ci darajay Seydina Mouhamad yal na yàlla defal jàmm allahumma salli ala Seydina Mouhamad wala alihi wa sahbihi wa sallam wa abdu wa rasul yal na yàlla defal jàmm Fama maa ngi lay ñaanal sama caat mi maa ngi ñaanal Fama Gueye bu baax a baax yal na yàlla defal jàmm ak sa xarit yëpp maa ngi ñaanal Samba Guissé sama mag ji yal na ko yàlla defal jàmm ak njabootu Kiné Diop yëpp njabootu Kaja Guissé yëpp maa ngi leen di ñaanal Aïssé Ali waa kër ga yëpp jabar ñoom Ndaya Fatima Kiris Aïssé bu ndaw maa ngi ñaanal yaa ak Ablaye Anne ak bébé Nday yal na defal jàmm maa ngi ñaanal képp koo xam ne sama famille maa ngi leen di ñaanal ñëpp maa ngi leen di ñaanal yàlla na yàlla defal jàmm ñaanal dem ba sama rakk ji yàlla na ko yàlla defal jàmm yàlla na leen yàlla defal jàmm karaaji bi yàlla na leen yàlla defal jàmm Abdou Mbaye bébé laa yéen ñëpp Ali Gise yéen ñëpp Baba maa ngi leen di ñaanal yéen ñëpp ka jàmm daw yàlla na la yàlla defal jàmm ka jàmm daw yàlla na la yàlla defal jàmm Fama Gueye yàlla na ko yàlla defal jàmm Aïssa yàlla na leen yàlla defal jàmm may leen li ngeen bëgg yëpp ak Fama yàlla na leen yàlla defal jàmm yéen ñëpp waa kër ga Baba yàlla na leen yàlla may fan wu gudd ak wér ak sama yaay Kiné Diop ak jàmm maa ngi leen ñaanal yàlla na leen yàlla defal jàmm si daraja Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam